Thank <laughs> you. ngay tàmbalee dañuy dem fële nag nga xamante ni lii nga xamante ni muy beneen jaloore boo xamante ni benn ci ay entreprise yoo xamante ni doomu Sénégal moo ko créé muy euh, entreprise national ñu dippee ko EDK Oil te kii nga xamante ni mooy Demba Ka daal di koy jiite di doomu Sénégal ginnaaw bu mu tukkee dem foofu ca États-Unis ba mu dellu see dafa xool lan la mën a jëriñ réewam mais xoolul lu ko réewam mën a jëriñ ñu demee foofu ca Bond Loans bu ESG Capital Market Africa 2024 nañ jàpp que daal kii di groupe EDK defatina na jaloore doon na benn leader bo xamanteni suñu sukuliko ci secteur bi nga xamanteni mo soxal lepp lu jëm ci walu distribution hydrocarbure dal dinaay célébrer li nga xamanteni moy ben victoire bo xamanteni bu historique la fofu ci Bond Loans e ESG Capital Market Africa 2024 ci suufu direction bi nga xamanteni ni di président directeur bi di monsieur Dembaka Ka di entreprise bo xamanteni tay honoré nañ ko jaarle ko ci ay accords yo xamanteni indi nako ko ko ci walu révolution ak lepp lu jëm ci walu obligation ak li di monnaie locale ba tey daal di wone li nga xamanteni moy engagement am jaarle ko ci ben secteur financier bo xamanteni bu muccu ayib la doon ginnaw lolu nak li nga xamanteni moy émission bi remarquable bi nga xamanteni suñ ko xaymaa dina tollu ci fukki milliards yo xamanteni ni danoo franc CFA ci weeru janvier 2023 dans les koy investir jëmale ko ci Capital Finance en tant que chef de file du distributeur du chef de groupe li nga xamante ni JLMS dans les marqué li nga xamanteni moy significatif étape bu significative ko opération yo dañ ko saluer comme pour la première fois ci genre bu melni di am ci entreprise distribution hydrocarbures jaarle ko ci union économique et monétaire bu ouest africain muy UEMOA mo permettre li nga xamanteni moy groupe EDK dal di concrétiser li nga xamanteni moy ben plan de développement le ko également ci li nga xamanteni ni joué na ko ci ben rôle bu crucial bu mucc ayeb jëm ci optimisation lepp lo xamanteni dafa soxol coût bi nga xamanteni dafa jëm ci walu renforcement jaarle ko ci ay paru marché yo xamanteni ni dañ ko symboliser ginnaw ubité mi bu mu tollo ci faut fukki nouvelle station service yo xamanteni def nako ci à début 2024, binga nga xamanteni ci lañu tologum muy ben réussite extraordinaire mu doon le fruit bo xamanteni lenn ko dévouement ak li nga xamanteni ni lignosité jaarale ko ci ben professionnalisme bo xamanteni kep équipe groupe EDK bi nga xamanteni ni ko ci PDG bi exprimer li nga xamanteni moy gratitude jëmele ko ci bép membre bo xamanteni ni souligné nga li di honneur bi liggéey ak ben équipe bo xamanteni ni bu am talent la bonne noppi daal bataille dévoué ba ci consécration bobu nga xamante ni na tay benn réussite am foofu ben benn cérémonie bo xamanteni bu prestigieuse la muy juróomi fan ak juroom benni fan ci wéru mars atum 2024 foofu ci Zeitz Moka nek ci Cape Town nek faut ci biir Afrique du Sud muy événement bo xamanteni tay dafa offrir ben opportunité unique du ko ci lek li nga xamanteni moy lumière don excellence dal di innovation engagement foofu e ci groupe EDK ci cas domaine bo xamanteni domaine financier ba noppi ñukoy féliciter mom mon monsieur muy féliciter képp kuy équipe bi nga xamanteni da nga bokk ci réalisation bu exceptionnelle bi ginnaaw mbolo moy dole li du groupe EDK dafa engagé wu pour repousser waat continuellement li nga xamanteni moy ay limites yo xamanteni atteindre nako jëmele ko ci ay nouveaux sommets Les pour bien-être ñi nga xamanteni moy sénégalais yi ak ñi nga xamanteni Afrique dans son ensemble batay suñu sukkuliko ci résumé bi nga xamanteni GFC Media Group def nako oui muy ben entreprise leader bo xamanteni ci organisation événement bobu la bok sukkuliko ci walu finance di daan entreprise ak banque ak investissement les lo de façon dafa soxal benn marché boo xamante émergent la jaarle ko ci ay frontières lu toll ci cinq mille euh, participants at bu nekk muy GFS daal dina koy concentré wu jëmale ko ci mise en relation bi nga xamante ni ay individu la ak ay partenaires commerciaux en contrepartie ñu jaarle ko ci li nga xamante ni mooy conférence ak benn table ronde boo xamante ni ay journée lay doon yo xamanteni dañuy sukkandiku ci wàllu information ak lépp loo xamante dafa jëm ci wàllu remise de prix ñu établir ko atum 2009 par ki nga xamante ni Alex Johnson GFC dans di observer daal li nga xamante ni ay tendance la yoo xamante post crise financier mondiale lañ ko lippee mu daal di conduire li nga xamante ni ay emprunteurs d'entreprise daal di jàll ci li nga xamante ni mooy ay prêts ak ay obligations yoo xamante premier événement bi di bond la woon secours euh, Middle East moom ci boppam moo ko à atum 2010 ak ki nga xamanteni moy GFC depuis bobu nak lañu organiser li nga xamanteni moy événement bi jaarle ko ci aduna wërngal cup suñu sukkandikoo nak ci tontu ñi ngi xam nak dal ginnaw bi ñu génnee ci pandémie bi di Covid 19 ba atum 2020 l'IDGFC di GFC dafa déplacé lépp luy activé activité en ligne daal di organiser li nga conférence en ligne qui duru 24 heures ginnaaw lol nak ñi japp ci lu toll 150 intervenants ak ñi nga xamanteni moy 2000 participants jëmale ko ci ay valeurs yi nga xamanteni GFC daf ko inclure dans di rechercher li nga xamanteni mom lañu tuddé excellence du travail d'équipe ak li nga xamanteni moy mooy dévotion sukkandiku ci ben accent bo xamanteni tay lenn mo koy sukkandiku muy performance ak li nga xamanteni moy haute qualité constance ba tey suñu sukkandikoo ci témoignage yi nga xamante ne ay clients souligné nañ ko jëmale ko ci capacité bi nga xamante ne GFC daal dina koy fournir muy ay information yu crédible honnête ba noppi doon li nga xamante ne lu complète la jëmale ko ci marché financier bi nga xamante ne tey def na ay conférences yoo xamante ne benn expérience unique boo xamante ne dafa précieux jaarle ko ci participants yi muy groupe bi nga xamante ne mooy groupe EDK bi nga xamante ni Demba Ka moo ko jiite di doomu Sénégal di un vrai patriote di un vrai leader boo xamante ne tey ci secteur économie wane na fi ay jéego yu bëri bëre bëre ndax sa tay suñu xoolee li nga xamante ne mooy création d'emploi li ci dembaka dugal tey yaakaar naa ni tax na ay ñu bëre dematuñu chômage mu daal di triomphe wu daal foofa ca Bond et EG Capital Market euh, Africa 2024 foofa ca Afrique du Sud yaakaar naa ni tey doomu Sénégal siggiwaat na ci kaw Afrique si gi ci aduna ci wàllu liggéey ci wàllu compétence ci wàllu économie ci wàllu hydrocarbure muy la première fois ñu leen di saluer di leen naan félicitations et encouragement à tous les euh, membres ak équipe bi nga xamante ni ñoo constitué wu foofu nga xamante ni mooy EDK.